ma nangul ko teewut demandé wu ma dara ñu wàññi ko continuer ñu dem ba élection législative yi jot président dikk woo ma ma ñëw mu ne Abdou Gaynde Fatma man lañ ko wax ne moom lay taan mu tànn ko ma ñëw ànd ak moom campagneal ko ba campagne bi jeex kan laa jàkkaarloo samay frère campagne bi jeex keroog ba mu tëj campagne bi sama kër gi la ko tëjee plus de 1 million ba dépassé ko ci après après ak ñi mu àndaloo jox lañ ko. ba muy dem mooy yéen ko joxoon yépp ci parti bi amut lenn loo xam ne nii yëkkati na ma na ko jox ma ñu nga àndal ca mboolem campagne bi lu ma def maa ko génnee ci sama mooy def ko ma ànd ak moom ban gañe ko yëmu ci mu dem toog këram kenn ci ñi nga xam ne ci liste bi la nekk muy Abdou Mbacké Ndaw ma ànd ak moom ak maître boobu ñu dem di def recours ngir kan kan laa koy defal koo xam ne liste boo xam ne nekkuma ca ba pare jàkkaarloo sama ngir plan défendre sama couleur parti kon ñun baaraadul yi moom lépp lu nekk nekk nañ ci lu nekkul ñu ci buñ ci nekkee dañuy dem ba jeex loolee ban ko defee samay rakk jàll ma ñaanal leen yàlla mu gën ci ñoom ca parce que am na quelque chose boo xam ne lu am importance la foofu ci signal ma ma koy wax famille Bara Dolly moom lépp loo xam ne jiitan ko ci politique yàllaa ci def loolu ndax nit ki mënoo nongul Serigne tubaa ci ay mayam ci mat la bu faw sëy nii yi nga xam ne wax na ko ci dëkk bi ca ñi fi yor politique bi ci dëkk bi dugguñu ci biir Serigne Touba ci bokk ci Serigne Touba kon faaw nit ñi di nongol ne famille sëñ Bara dooli moom yàlla am na lu mu def ci ñoom loo xam ne sëñ bi may na leen ko ci wàllu politique kon loolu moo taxoon ni teewut ba président defee loolu ma ànd ak moom jàppale ko tey bërki dem ma dégg dégg naa ci ab télé muy wax di di lim waaw tax foofu foofu xam moom wax na lim na ay nit maanaam est-ce que moom jàpp na yow doo responsable boo xam ni responsable bu mag nga ci APR jàpp na ni xay na liggéeyoo dara est-ce que tekkul nekkul loolu moo tax tudd la parce que gis na ñu mu tudd ñoo xam ni xam nga dafa am lu may wax li may wax nit ki bu fekkee da nga koo fekk ci parti bu xeex jotee mooy xeex bu fetal yi di tàkk ci kawam lay tàkk moom ci jëmmi boppum fun na parti bi du fa dem ba 28 bi bi mu euh, rëcc ñoom ak euh, euh, signor ñoom ak dem di taxaw ne kenn du fi jaar mel nu man ci responsable maa fa jaar. ah ba ni attaqué sama ay tey parti bii mu ni décidé ñeenti nit ñi jiite dëkk bi sama tur ci biir ñeenti nit ñooñu lay doon buñ ko fuñ ko tuddee ablaat kat tudd ko moom tudd ablaat Sadaga maa ngi ci biir loolu moom moom xam na ko beneen ba ca desit mooy euh, euh, kër ga nga xam ne fa ngay tëjee sa campagne kooku bu fekkoon ne amul lu mu peese ci parti duñ ko mën a wax xanaa kay dem xëy na Mbàkke la sant Mbàkke laa sant ca man nee naa ku sant Mbàkke dutuma jiite ci parti bi xëy na loolu mooy moo moo ko déranger ci loolu mais li ëpp solo ma wax la ko loolu amul solo non ci politique ci dëkk bi loolu moom c'est fini beneen bi ci desit ma ma ma ma taxawal ko parce que nong naa ko nangooti ko ca ba ma ko moom moom Cheikh Abdou Gaynde Fatma mu ñëw doon gumba ci nekk ab socialiste ñu jël ko teg ko ci suñ kanam ñu nangol président lu meloon noonu te président duutu yëkkatibaat keneen di ko tegaat suñ kanam ci lu mel kon gëm naa ne ba doonee gumba ci politique jiite ñu ñu ànd ak moom ba gumba gi daanee lañ ci am kàmb du ma nanguwaat geneen gumba wala moom gumba googu continué waat du ñu jiite ci kàmb loolu ñàkk fay def gumba googu ko sa kilifa jëlee daal ko déggoo li ma la wax dama ne sama kilifa bu jëfee leen ñu àndal ko ak moom ca loola tànn ak gumba gumba googee yaru yatam jiital ñu ba daanee ñu ci kàmb ñu génn ci kàmb gi war a doxaat bu ñu tegalaatee gumba man mii maay njëkk a lànk ku koy nangu dama koy lànk amatu non non non non dama jàpp ne moom sax du ko def parce que moom moom xam na politique du jiital gumba bu gumba gi daanu mu koy jiitalaat. mën na ko ndax bu ndax Déthié Fall moom dafa mel ni leen gën a jege njiit réew mi lool président moom du façon nit ku mel président moom mën nay wéy ci ay ndigal ak ay lobi ay kilifa ngir am lu muy daw lu muy bàyyi xel waaye gis nga bu ko defee ba def ko ba noppi ah cay ñooñee gis seen résultat ndax ganaaw élection yooyu ba mu jàllee ñi ko ci doon jàppale ci loolu ak di ko dugal ci loolu ñu ci bari am nañ kersa pour gis ak moom kon nag ñooñu moom duutuñu ko demandé waat kon loolu taxul ñuy wax kon moom loolu mu wax ne déclaré wul candidat waaye ku ko jox mu gañe ko loolu moom jaare ko jëru mu di ko wax parce que gëm na ne kenn ku ko jox ba ba ba mu pertaat wala di gañewaat laneen la ca nekk nag mooy ñun ñi nga xam ne nag ak gëm nañ ne conseil département bi bu buñ ko tegee ci sunu loxo responsable yi meroon yëpp ñu dem jëli ji leen boole ci ndaw ñi boole ci jigéen ñi wàcc ci bi bañ di tëdd ba une heure gëm naa ne dañuy dañ koy gagné.